asalaamaaleykum mbokk internet yi mbokk téléspectateurs yi safoo di seetaan TMS TV dalate nag jàmm ci seen télévision bi feeñal li nëbbu ngeen nekk seen émission sportive muy tribune des sports tribune des sports na xaw ngeen ko gëj am temps yi temps bi moo ko maywutoon tey nag ñu dellu si di leen ko defal mu nekk benn numéro spécial boo xam ne dañ leen di defal un bref rappel ci championnat yëpp fi mu toll point yi équipe bu nekk li nga am jaarale ci Ligue des champions ci équipe Sénégal ak yooyu yooyu donc ñu ngi leen di jaajëfal ci seen seen euh, kóolute donc di leen euh, di am mbégte rek di leen jox saa su ne yi nga xam ne mooy résultat sport yi ci championnat yi Ligue des champions ak yeneen ak yeneen dañ koy nag doore ci Ligue des champions donc nous allons commencer par euh, donc la Ligue des saison deux mille donc vingt deux mille vingt et alors donc bu ngeen xoolee Ligue des champions boobu groupe groupe yi dafa bëri am na groupe A donc ba donc dem ba G donc groupe A bu ngeen xoolee. donc Bayern na moo jiitu donc am 12 points ngeen gis ne Atlético Madrid moo ci topp am 5 points euh, Lokomotiv Moscou topp ci am 3 points euh, Red Bull Salzburg topp ci 1 point bu ñu demee groupe B gis nañ ne Gladbach moo jiitu am 8 points Real Madrid topp ci am 7 points Shakhtar Donetsk topp ci am 4 points Inter Milan topp ci am 2 points gis ngeen ne foofu Inter Milan position euh, donc baaxul dara moo mujj ci groupe bi ñu dem groupe C. ngeen xoolee groupe C Man City moo dominé mu ngi am 12 points Porto topp ci am 9 points Olympiakos topp ci am point points Marseille moo mujj ci groupe boobu am 0 point donc Marseille presque moom élimination moo gën a jege quoi. ñu dem groupe D bu ñu demee groupe D nag ñu gis ne Liverpool moo jiitu moo nekk à la première place am 9 points Ajax donc topp ci am 7 euh, points Atlanta topp ci am 7 points Midtjylland topp ci am 0 point. donc euh, bu paree ci groupe boobu ñu dem ci groupe E bu demee ci groupe E di ngeen gis ne Chelsea euh, moo jiitu am 10 points FC topp ci am 10 points euh, Krasnodar topp ci am un point Rennes aussi topp ci moom moo mujjee am un point donc bu ngeen demee groupe F nag Dortmund moom moo jiitu am 9 points donc Dortmund am 9 points Lazio de Rome am 8 points. Donc Laziodorum euh, a 8 points. Donc Laziodorum a 8 points. mooy groupe F bi donc Laziodorum am 8 points euh, ñu continuer donc Laziodorum am 8 points FC Bruges am 4 point e Zenit am un point groupe G bi nag comme ni ma leen ko waxee euh, Barcelone moo jiitu am 12 points Juventus topp ci am 9 points. donc Dynamo Kiev am un point moom moo nekk à la troisième place euh, Ferencvárosi TC am un point donc dem na sax ba group H parce que group H bi moom euh, Manchester United moo fa jiitu am 9 points Paris Saint-Germain donc am 6 points Leipzig am 6 points Istanbul donc am 3 points donc dem na groupe A ba group H donc Ligue des Champions donc loolu moo nekk li nga xam ne mooy rappel bi euh, na am ci euh, Ligue des champions ñu dem nag ci championnat yi championnat yi xam ngeen ne bëri na mais nag dañ ci faral di tànn quatre championnat muy championnat France championnat euh, donc Italie donc championnat donc Angleterre donc ak yooyu yooyu donc bu ñu xoolee championnat Angleterre déjà calendrier bi tey dafa am solo Brighton moo war a dajeeg Liverpool tey 13h30 la woon euh, normalement match bi léegi mu jeex euh, Man City di dajeeg li tey 16h euh, Everton di dajeeg Leeds West Brom di dajeeg Sheffield loolu yëpp tey la suba nag Southampton dina dajeeg Manchester United Chelsea di dajeeg Tottenham Arsenal. di dajeeg Wolverhampton donc Chelsea day dajeeg Tottenham te Tottenham moo nekk a la première place donc Chelsea nekk troisième place dina doon match bu metti Arsenal di dajeeg euh, Wolves alors Leicester di dajeeg folam West Ham di dajeeg Aston ngeen gis ne nag championnat boobu kiy jiitu mooy Tottenham am 20 points Liverpool topp ci am 20 points Chelsea topp ci am 18 points donc Chelsea moo nekk a la troisième place hmm? Leicester moo nekk à la quatrième place am 18 points Southampton am 17 points. Everton nekk à la sixième place am 16 points donc Aston Villa euh, nekk à la septième place am 15 points West Ham nekk à la huitième place am 14 Wolverhampton am 14 neuvième place dixième Newcastle am 14 Manchester United nekk euh, donc à la onzième place am 13 Arsenal moo nekk à la douzième place am 12 points donc bu jógee ci loolu ñu dem championnat donc euh, France. Euh, ngeen gis ne tey Olympique euh, Marseille dina dajeek Nantes 17h euh, alors Paris Saint-Germain di dajeek Bordeaux 21 donc 20h lay doon fii différence d'heure bi une heure de temps la Olympique Lyonnais di dajeek Stade Rennes Stade Rennes suba 13h Metz di dajeek Stade Brestois suba aussi toujours 15h alors FC Lorient di dajeek Montpellier donc suba aussi 15 alors ñu gis ne nag classement boobu bu ñu ko xoolee ci euh, championnat France Paris Saint-Germain mooy jiitu toujours am 24 points Lille topp ci am vingt deux points Olympique Marseille topp ci am vingt 21 points donc nekk euh, à la troisième place euh, Olympique Lyonnais nekk à la quatrième place am 20 points Montpellier nekk cinquième place am 20 Monaco nekk sixième place am 20 Rennes nekk septième place am 19 points Lens nekk huitième place am 18 points. Euh, nice am nekk à la neuvième place donc am 17 points donc Las moo nekk huitième place am 18 Nice nekk neuvième place am 17 Metz nag nekk à la dixième place am 16 points Angers nekk onzième place am 16 points toujours euh, Bordeaux nekk douzième place am 15 Brest nekk treizième place am quinze nant nekk quatorzième place am treize Nîmes nekk à la quinzième place am dix euh, onze points du moins Saint-Étienne nekk nag à la seizième place am dix points donc ngeen gis ne donc championnat France Saint-Étienne euh, place am dafa sori mu ngi nekk donc à la seizième place donc am dix points alors ñu dem nag euh, championnat itali donc championnat Italie bu ngeen xoolee calendrier bi Benevento moo Bone Benevento mooy dajeeg Juventus tey 18h Atalanta di dajeeg Verona donc 20h45 euh, Lazio di dajeeg Udinese euh, Bologna di dajeeg Crotone Milan di dajeeg Fiorentina loolu suba la donc Bologna aussi ak Crotone suba la Lazio Udinese aussi suba la alors yooyu yëpp donc euh, Bologna bi 15h la. Lazio bi 12h30 Milan Fiorentina 15h Cagliari Spezia suba la 18h Napoli Roma loolu match bu mag la Napoli ñoom Kalidou Koulibaly suba la 20h45 euh, Torino Sampdoria donc moom ginnaaw suba la la 30 18 h alors donc ngeen gis ne donc euh, Genoa Parma ginnaaw suba la aussi 20 h cinq ñu xool ne championnat Italie boobu bu ñu xoolee ki ci jiitu moo nekk euh, Milan am 20 points donc euh, Milan AC moo jiitu am 20 points donc Inter Milan ñëw topp ci am 18 points Sassuolo topp ci nekk troisième place am 18 points Roma topp ci nekk quatrième place am 17 points Juventus nekk à la cinquième place am 16 points donc Napoli. nekk donc à la sixième place am 14 points Atlanta donc nekk euh, à la septième place am 14 points Lazio nekk à la huitième place nekk euh, nekk à la huitième place am 14 points Verona euh, donc nekk à la neuvième place am 12 points Sampdoria nekk aussi à la dixième place am 10 points Cagliari nekk à la onzième place am 10 points Bologna donc nekk à la douzième place donc am am 9 points. am naa dañuy def pause après ñu continuer tuuti donc ñëw ci championnat Espagne ñëwul leen aussi ci euh, donc euh, jour yi nga xam ne euh, donc Sénégal am na ko ci ay match maanaam équipe nationale ak équipe Lions équipe U20 yeneen ak yeneen ñu dellu si ci dans quelques minutes ñu donc ñu am benn pause une minute rek dellu seeg yéen ci loolu. mbokk internautes yi comme ni ñu leen ko waxee bu ngeen xoolee nag euh, championnat Espagne actuellement nii am na match sax buy daw en live actuellement Valence mu ngi dajeeg Atlético donc ñoom ñu ngi nekk 0-0 pour le moment donc tey nag aussi 18h30 USK dina dajeeg Séville euh, ngeen gis ne Real Madrid tey dina dajeeg Alaves 21h xam naa 20 lay doon fii donc différence d'heure bi une de temps Barcelone dina dajee suba. ak euh, Osasuna à partir de 14h muy doon 13h fii normalement alors Getafe dina dajeek Atlétique alors euh, ngeen dem gis ne Celta Vigo euh, suba dina dajeek Granade à partir de 18h30 alors Real Sociedad dina dajeek Villarreal à partir de 21h ngeen gis ne Betis dina dajeek Eibar donc Betis mooy mujj moom dina dajeek Eibar donc le trente lay doon à partir de 21h ñu gis ne nag classement Espagne. championnat Espagne du moise bu ngeen xoolee euh, donc Real Sociedad moo jiitu ba léegi euh, donc nekk à la première place am vingt 23 points ngeen gis ne Atlético moo ci topp. nekk à la deuxième place Atlético donc Madrid euh, donc am point points Villarreal topp ci am 19 point Real Real Madrid nekk à la quatrième place donc am 17 points. Cadiz ñëw nekk cinquième place am 15 Granada nekk sixième place am 14 Séville nekk septième place am 13 euh, donc Elche nekk huitième place am 13 points toujours Atlético Club nekk donc neuvième place am 12 points. Valence nekk à la dixième place am douze point Réraven nekk à la onzième place am douze points Betis nekk à la douzième place am douze points FC Barcelone nag moom dafa sori trop ci classement bi parce que mu ngi nekk à la treizième place am onze points donc loolu lañ leen doon defal comme euh, rappel euh, ci championnat yi donc ngeen gis ne donc championnat euh, donc Angleterre Tottenham moo fa jiitu gis Italie Milan moo fa jiitu championnat France Paris moo fa jiitu donc championnat Espagne nag ngeen gis ne kii moo fa jiitu mooy donc Real Sociedad donc noonu la demee alors. donc loolu moo moo fi xew championnat donc euh, euh, euh, donc championnat Allemagne moom dafa mel na kii moo fa jiitu championnat Allemagne Bundesliga boobu lañ leen joxagul je pense bien jox nañ leen ko donc championnat donc. voilà championnat donc comme ni ma ko waxee championnat euh, Allemagne na moom moo fa jiitu moo nekk euh, donc à la première place am 22 euh, points. donc loolu moo fi amoon Ligue des champions aussi gis ngeen euh, niñ leen joxee donc classement bi par rapport ak poule yi ñi jiitu euh, en na donc yeneen phase yi di ñëw ngeen gis ne nag temps yi Sénégal macha allah équipe bi ñu ngi góor góorgóorlu ñoom Sadio Mané ñu ngi def lu lu rafet ñoom gis nga leen déjà qualifié nañ direct Coupe d'Afrique euh, donc prochaine parce que dañu am 4 matchs 4 victoires ngeen gis ne Guinée-Bissau dañ ko dóor fii Sénégal fi Stade Thiès 2-0 dem fekk leen dóor leen 1-0 donc ñoom qualifié nañ directement ngeen gis ne aussi U20 euh, yi démb avec Youssouf Dabo ñoom tamit qualifié nañu final ci tournoi UFA e boobu ginnaaw buñ dóoree Guinée-Bissau tiro bi mu nekkoon match bu metti gis nag ne aussi Lions yi nga xam ne ñooy basket ci seen tournoi bi ñu nekkoon euh, pour qualificatif afro basket yi di ñëw euh, gis ngeen ne seen ñett match yëpp dañ ko gagné donc demb sax Angola lañ amoon mais ñu dóor ko dóor yu metti 66 euh, donc 51 donc loolu lañ leen indi loon ci seen émission Tribune des Sports alors donc di leen jox peut-être dig daje ci yeneen jotaayu xibaar so thanks a lot following us and thanks every time for your faithfulness and thanks being with us every like you to comment a little bit for your very, uh, you know, Sport because your comments will be, urging us to do better. So, alors, merci euh, donc de votre fidélité et on aimerait souvent avoir euh, donc vos commentaires, ce qui pourrait tout simplement nous aider à améliorer donc davantage l'émission. Merci à vous et merci surtout de votre fidélité.